bu ngeen bu ngeen ñu doon suivre ci partie bu njëkk bi da ngeen di gis ne ñi ngi taxawee woon ci ñetti xeetu ñaan yi nga xam ne moom la nit di ñaane bu feebaree bi ci njëkk mooy maanaam buñ ne buñ ñetti xeetu ñaan nag waxuñ ne ñett yëpp nga war a jëlandoo dëgg la boo ko mënee jëlandoo yëpp baax na mais tamit ñett yi benn bu ci nit man rek di ko fajoo baax na bi ci njëkk mooy boo feebaree bu la neexee nga teg sa loxo fi metti wax allahumma rabban naasi adhibil ba'sa ishfi anta shaafi la shifaa illa shifaauka shifaan la yugaadiru soqama boobu benn la ñaareel bi mooy bu la neexee itam nga wax lii bismillah bismillah nag benn yoon nga koy wax boo waxee bismillah benn yoon lii nga ci teg moom juróom ñaar yoon nga koy wax a'uuzu bi izzati llahi wa qudratihi min charri ma ajidu wa uxaadir waaw beneen bi itam mooy bu la neexee nga wax baat yi bismillahi te baat yi nag moom su boobaa doo moccal sa bopp mais keneen ngay moccal bu ñu indi doon ko boppam di metti wala tànkam di metti wala loxoom di metti bu la neexee boo koy moccal nga teg sa loxo ci boppam wax ko baat yi may bëgg a wax bismillahi urqiika min kulli shayin yudiika min charri kulli nafsin aw ayni xaasidin allahu yashfiika bismillahi urqiika nga waxal ko ko benn yoon mbokk yi kon biñ paree ci baat yi ñu bëgg ñëw ci beneen point point bi ñu ñëwaat mooy est ab jullit sañ naa faj ab yéefar wala ab yéefar mën naa faj jullit ak itam ndax góor mën naa faj jigéen ak jigéen dagan na mu faj góor mbokk yi boroom xam-xam yi nekk ci lislaam yépp daganal nañ ne ab yéefar bu fekkee nekkul kuy trahir bu fekkee ku am nuñ koy waxee ti nekk na amin maanaam nekk na ku wóor mën naa faj ab jullit loolu dagan na waaye itam góor mën naa faj jigéen jigéen mën naa faj góor waaye nag dañ ne fii xaalati darura fii xaalati darura mooy lan ci situation de contrainte contrainte lu tubaab di wax contrainte maanaam tey pour mu gën a leer ci bopp nit ñi mooy li lislaam gënoon a bëgg day mooy góor ñi di faj góor ñi jigéen ñi di faj jigéen ñi waaye nag bu ñu xool euh, par exemple bu ñu jëlee fu mel ne Sénégal pour jigéen ñi di jàng yenn xam-xam yi dafa jafe te xam ngeen ne médecine dafa yàgg ndax médecine mën nga koy jàng am ci sept ans wala huit ans wala neuf ans at yaa ngi cay durée di ko jàng dafa yàgg te da ngay gis ni pour jigéen ñi nangu caa toog durée ca at yooyu ba am ci xam-xam bi ñuy am dafa jafe moo tax dangay gis ne hôpital yi sax pour ñu am ay gynécologue yu jigéen wala yooyu day jafe ndax lan temps bi mu laaj pour jàng ko jigéen ñi dañ ko cee nanguwut a def moo tax ba da ngay gis ne da ngay dem ci hôpital gis fa gynécologue bu góor mooy visiter jigéen ñeeg yooyu visite ba muy visiter jigéen ñi nag dagan na ndax lan dañoo amul ay jigéen yu ko jàng ba mate ko looloo tax mais day li gënoon mooy vraiment ñu soññoon jigéen ñi bañ jàng ko ba jigéen di faj jigéen góor di faj góor loolu moo gën waaye nag vraiment suñ gisee ne nag xam-xam bi yaatawul noonu ba nga xam ne dañu fekk loo xam ne góoroo ko waroon a def defal jigéen waaye nag wax dëgg yàlla góor a ko waroon defal moroomu góoram mais gisuñu beneen góor bu ko man jigéen rek lañ gis jigéen gi sañ naa faj góor gi wala loo xam ne jigéen a ko waroon defal moroomu jigéenam waaye xool nañ jigéen gu jàng xam-xam bu ko matee nekku fa góor rekk fa nekk góor mën na ko mën naa mën na ko defal jigéen bi kon daal ci gàttal daal góor mën naa faj góor jigéen mën naa faj jigéen waaye nag islam de loolu gënalu ko woon bu sañoon daal ñu yaatal xam bi ba lu góor jàng jigéen jàng ko góor ñi dafa góor ñi jigéen ñi dafa jigéen ñi ñu ne waaw lan moo tax ñu ne ah, ab yéefar mën naa faj euh, jullit ñu ne li tax ñu ne ab ab yéefar mën naa faj jullit mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam euh, am na ay mushrikoon ay yéefar yoo xam ne daana leen daana jëflanteeg ñoom ci wàllu maanaam ñu koy faj waaye itam dangay gis ne li tax ñu ne jigéen itam sañ naa mën naa faj góor mooy ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wasallam buñ daan xare jigéen ñi ñoo daan féetewoo wàllum paj waaw jigéen bu masaana dem xare daawut yor ngànnaayam di xeex de déedéet dañ ne ko ku blessé rek yéen jigéen ñi yéen a ko war a faj kon ginnaaw yonent ci jamono yonent bu ñu daan xare jigéen ñi ñoo daan faj ñi blessé ñu ne ah kon kay jigéen dagan na mu faj eh, li nga xam ne mooy eh, góor loolu itam lu jar a bàyyi xel la eh, mbokk yi itam Euh, al maxaajir as fixiya maxaajir as mooy lan mooy par exemple su fekkee euh, nit da nga dafa amee ay feebar nan lañuy fexe ba mu yem ci moom rek te mu bañ a wàll ñeneen loolu itam lislaam da cee wax lu yaatoo yaatu moo tax kon ñi nga xam ne dañu amee feebar buy wàlle islaam dafa bëgg ñu ber leen bu nee ñu ber leen nag waxuñ ñu sànni leen di leen seetaan déedéet ñu beral leen seen néegu bopp ba nga xam ne duñ mën a jokkoo ak ñi nga xam ne ñoo wér ba leen di lor ndax yonent bi sax da ko bañ ba waxuma la sax ci cadre nit ak nit mais mala yi sax bëggul ñuy wàllante boo gisee ci benn xadis muy wax ne laa dan mu yuridanna mumarridun mu musahih maanaam même boo yoree gëléem gu feebar sax bul ko wëgg fa ñuy wëggee gëléem yu wér yi ndax mën na leen a wàll ginnaaw nag ci gëléem ak i mala rek la koy waxe rawatina nag ci cadre doomu aadama foofu moo gën a yay moo gën a jaadu ñaareel mooy taawun taawun mooy lan mooy épidémie lu mel ne ki épidémie choléra wala épidémie paludisme wala tuberculose feebar bu tasaaroo bu amee cib dëkk loolu lu ci lislam wax ab dëkk saa bu ca feebar bu tasaaroo amee lislaam bëggul ku voyager jëm fa buggul ku ku fa génne di dem beneen dëkk yonent bi sallallahu alayhi loola santaan par exemple tey bu ñu newoon Mali day choléra am na fa bëgguñ kenn jóge beneen réew di dem Mali bëgguñ itam kenn jóge Mali di dem beneen réew waa Mali nañ yem seen réew ñu nekk ci yeneen réew yi itam buñ dem Mali googee ci misaal ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam daf ne ida waqaa bi ardin wa antum biha fala taxruju minha wa idaa waqa bi ardin wa lastum biha fala tahbitu alayha maanaam nee na feebar bu tasaaroo épidémie choléra wala tuberculose wala benn feebar bu tasaaroo saa bu amee ci dëkk nee dëkk boobu bu fa kenn génn bu fa kenn dëkk dugg kon buñ ne woon vraiment dëkk ba ñuy wax Kolda ci misaal dafa am feebaru choléra dañ ne Kolda kon bu fa kenn duggati bu fa kenn génn na waa Kolda toog Kolda ñeneen dëkk yi amagul feebar boobu buñ demati Kolda ba keroog ñu ne feebar boobu jeex na Kolda ñu soog nag commencé waat nit ñi di fa dem ñoom ñuy génne di jokk ak ñeneen dëkk yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxaat ne laa adwa wala tayara l'islam buggul nit feebar di jaxasoog ñi wér di leen di leen di di leen wàll waaye itam wala toyra wala toyra mooy lan gaafal l'islam da koy tere par exemple nga naan bu ma xëyee bu ma taseeg jigéen sama journée day neex bu ma taseeg góor nag damaa war a dëppaat wala bu ma taseeg ku bokk ci xeet wi sama journée day neex wala yu mel ne yooyu yëpp yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na na ko li na ko julli ñi bàyyi waaw bu ko defee itam euh, ñu ñëw ci baneen mbir mooy nit bu feebaree jullit ñi dañ ko war a seeti loolu itam lu jar a bàyyi xel la même bu dul jullit sax sa mbokkum doomu aadama rek maanaam ay valeur humaine la yoo xam ne l'islam da koo maintenir sa mbokk doomu aadama bu feebaree da nga ko war a seeti a plus forte raison nag mu nekk ab jullit mbokk yi moo tax kon dagan dafa war mbokkum jullitam bu feebaree jullit mbokkum jullitam bu feebaree dafa war mu seeti ko ndax yonent bi sallallahu daf ñu wax ne atamul wa fakkul aani yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na dee leen joxe aw ñam di seeti ku feebar te képp ku ñu jël otage laaj ko ab som na ngeen ko dimbale ki som bi ba mu joxe ko mën a libre yonent bi sallallahu alayhi loolu ay valeur la yoo xam ne c'est des valeurs islamiques yonent bi sallallahu alayhi di ci soñu jullit waaye nag euh, sopp nañ nit bu feebaree bu seetee ku feebar mu ñaanal ko yàlla saafara ko waaye itam mu di ko dëfal pour muy gën a muñ di ko wax ne ah feebar bi kat xëy na kii na metti na waaye nag incha allah day wér waaye daal euh, loo xam ne day tas yaakaaru jullit bi boo ko seetee bul ko ko wax par exemple ngay seete ku feebar naan ko ah feebar bi de daloon na diw waaye dañ ko opéré woon ca la jaare sax faatu wala nangam nangam ñu ne yooyu islam bëgg ko déedéet dee ko wax luy tax xelam gën a dal luy tax yaakaaram gën a yokk itam ndax sax ndeysaan ba ba léegi itam dañoo bëgg boo seetee ko feebar bul fa yàgg maanaam daal gën na nga fa am cinq minutes rek waaye seeti ku feebar toog fa lu yàgg yàgg di wax ay détails rek loolu itam bëgguñu ko ndeysaan daañ wax ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam bu musaane seedi ku feebar lan la ko daan wax daf ko daan wax la ba'sa tahurun insha allah maanaam da ko daan wax naan ko ah feebar bi de garaawul moom day dina wér waaw kon loolu itam bàyyi xel ne jullit bu nekk war na koy bàyyi xel bàyyi xel ne itam du ab jullit rek nga war a seeti waaye euh, ab yéefar itam bu feebaree war nga koo seeti ndax nee nañ am na benn xale yahud bu ñu daan wax abdul quddus xale yahud boobu ñuy wax abdul quddus ndeysaan li muy doon doon yahud yàlla da koo xiiroon ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam muy nekk ci yonente bi rek ndeysaan bëgg ko lool te duggagul ci lislaam nag bi mu feebaree li muy doon doon yahud yonente bi waxul ne kii du ab jullit de déet mais dafa dox ak tànkam mu seeti ko bi mu ko seetee gis muy sukuraat te yonent bi sallallahu alayhi ku bëri yërmande la mu ne ah waaw kii de ni ma fonke woon te mu ngi sukuraat waaw nan laa ko mën a fayee yonent bi ne ko waaw léegi tuubal bi mu ne koo tuubal Abdul Abdul Qudus toog ak papaam rusa tuub mu xool papaam papaam ne ko ah ginnaaw nee na lu tuubal tuubal rek mu daal di tuub bi mu tuubee yonent bi yan baat la wax dane alhamdulillahi ladi anqadahu min an naar yonent bi dafa muñ ne maa ngi sant yàlla yàlla ku bëri yërmande la puisque xoolal kii xettali na ko ci safara te jëful benn jëf lu dul wax baatu ashhadu an laa ilaaha illallaah wa ashhadu anna muhammadan rasulullaah kon yooyu yëpp nañ ko gën a bàyyi xel yàlla nañu yàlla defal jàmm te defal leen jàmm te yokk xéewal ci Sénégal ak mbooleem fu jullit yi nekk rek yàlla yokk xéewal ci àdduna bi yëpp wasalaamualeykum wa rahmatullah